bi Serigne Touba ñibbisee Touba ñu di ko màggal murit yëpp ak jullit yëpp di daje Touba kon bu wootee tey jii ci këram mbooleem ku nekk ci département bi tam séq ak yow parti bii di APR tam séq ak yow wëllëre mu woola tey jii ngeen yendoong moom def ay bernde jàpp naa waxtaan woowu xajul sax ci biir saal bi ci kanam tuuti bu ñu noppee danañu génn ca bitti eggale ko waaye nag ci biir loolu dafa am benn délégation bu mag bu ñëw bàyyi ko ci madame la ministre soxna Mimi bi nu ñëwee war a siyaare Serigne Amadou Moukhtar ak mboolem jabatu Cheikh Moustapha al Karim gi waaye dañu ni booy dugg ci néeg jaaral ci bunt bi délégation bi ñuy jaar ci sëriñ Cheikh Abdou Bali Mbacké fas yéene njëkke ci moom waxtaan ak moom xamal ko ni ko ñëw nañ ci kër gi te bunt bi loolu moo tax ñu njëkke fii délégation boobu nag laa bëggoon a lim ñu may ma tuuti délégation bi euh, délégation boobu bàyyikoo ci ki nga xam ni mooy présidente conseil économique et social soxna Mimi Touré imam Bamba Sall nekk conseil moo jiite délégation bi jàpp na jiite délégation bu bàyyi ko ci présidente Mimi ñëw fii ci Touba ku tudd Bamba jiite ko loolu du asar bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi haqqa hamdihi wasalaatu wasalaamu ala imaami al anbiyaai wal mursalin seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma axrijna min zulumaati alwaxmi adirina wal xaadiraat asalaamualeykum mbokku jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziare ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne mooy sababu teewaay bi fii tey ñoo ngi leen di nuyu ci turu président de la république njëkk ci turu alxajjatu mii mi Aminata Touré ci turu mboolem conseil économique social ak membre ya fa nekk ak administration bi ñoo ngi ñëw tey bokk ak yéen ci bis bii di ndawul soxna Aminata Touré li tax ma ne ci turu président de la république moom bi ñuy ñëw daf ñu xamal ne bu ngeen demee sax bu leen tudd sama tur ndax président la jàppale ci liggéey bi te itam euh, bis booba ci fi ngeen jëm muy sëriñ Abdoul Ahad baali tàntam la ñu bokk gouvernement bi muy ministre bokk président de la république mu xewle kon ci turu président na ngeen ci wax waaye bu leen tudd sama tur képp ku nekk ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale war na teew ci sa kanam yeesalu ci bis bi wan la na la mi ngi am mbégte bokk ak yow bis bi ndax loolu mooy delloo la cër bi nga xam ne moom la la yàlla ak yonant bi defal ci say barke maam nga mënoon a yem ci nag sëriñ bi ndax sëriñ intellectuel bariwul waaye nga mënoon yem ci sa barke maam te loo ci wax yàlla def ko nga dimbale jaam yi waaye nga boole barke boobu boole kook wàllu administration ngir soowee réew mi liggéeyal réew mi te loolu moom li ñu moom la réew mi manqué doomu soxna yoo xam ne bu ñu toogee ci daara ji yar nit ñi ci wàllu yàlla bu ñu delloo ci ci état waxal nit ñi ndax wàllu social ak wàllu réew mi kenn gënu koy kenn gënu ci yey doomu soxna ndax Sénégal boo ko calculer ba mu daj quatre vingt dix pour cent ci dëkk senegal yi dëkk boo ci dem dañ laa ne sëriñ sàng ma tojoon dëkk ba moo sampoon daara ja moo tabaxoon jumaa ja moo tojoon àll ba joxe tool yi quatre vingt pour cent ci dëkk Sénégal yi sëriñ see ko toj kon culturellement ñoo jàngal nit ñi économiquement ñoo liggéey ñoo liggéeyloo nit ñi yar leen kon ñooñu kenn mënul defar réew bàyyi fi seen njaboot kon ku mel ni yow bu ko yàlla xamalee loolu xam-xam bu sori jógee ci sa waajur wa ndax vision bi mu amoon visionnaire la woon néew na doomu soxna bu ko amoon ci jamono boobu nga jël rol boobu di ko doxal boole kook yar taalibe yi waaye boole kook di liggéey ci wàllu réew mi ba am ci maqaama yi nga toll kon soxna si nee na loolu faw ñu ñëw ndokkeel la siyaare la wan la na la lu sa àdduna bi yëg la lu président yëg la waaye lu réew mi yëg la surtout moom particulièrement dafa am benn cofeel bu mu nekk sa diggante ak moom boo xam ne bi kóllëre la ak cofeel la bu mu jàpp sa diggante ak muy fedd li kóllëre googu ci turu mag président Macky Sall seen diggante jàpp gi mu la jàpp ak kóllëre gi nekk seen diggante di ñaan nag li ëpp solo pour moom nga ñaanal ko ci bis bi ba yenn bu bees yi ñu ko dénk conseil économique ak soppite yam fa war a def yëpp ngir defar ko nga ñaanal ko ci si bis bi ci sa barke maam ndax yàlla jàppandil ko mu mën a mottali liggéey boobu. ñu lay ñaanal gudd fan wér gi yaram kattan ba mission boobu sa maam dénk la mission boobu nga yóbbu ko ba fañ ko bëggee mu yegg fa te yàlla mu am ndog ci sa barke maam. lii moo doon message su soxna Aminata Touré mu yónni ñu ñu conseil yëpp. ñëw ci sawet tey bokk ak yow bis bi euh, ñu ngi am problème mu budget ba tax na am na lu bari lu mu yéene mënu ko woon ndax njerte bi ci budget duggagum ci budget bu bees waaye moom li mu natt ci conseil économique mooy fépp fu këru diine di yëngu rawatina fii nga xam ne mooy xolu Sénégal li mu natt ci conseil économique mooy lu fiy yëngatu conseil économique dugal ca loxoom ba sori ak kattanam ak man-man ak teewaayam. lii tàmbali la bu ñuy ñëw di siyaar waaye fas nañ yéene doxal loolu ci lépp loo xam ne lii mi ngi dox fii ci dëkk bu sell bi loolu mooy bokk na ci soppite yi nga xam ne bëgg na ko def ba nga xam ne dañuy présence fu nekk ci réew mi ci këru diine yi ci barabu diine yi ci barabu social yi bëgg na ko euh, def loolu ndax liggéey bi ñu bëgg a def ci réew mi yàlla mën ko sottal ñu mën mu mën ko def ni ko président de la république digal lu manqué nag ci waaye tëju naag ñun wax ñu lépp lu ma war a wax pour ma ñëw wax ko ci diggante nit ak ku sopp ci diggante nit ak ku bokkal nguur ci diggante nit ak ku bokkal kilifa muy président de la ci diggante nitu diine ku ñëpp yaakaar luñ ci lu ma ci war a wax wax na ma ko kon lu ci manqué ci man ñoo ngi leen nuyu di la siyaare di siyaare ñàkku ñaan ci bis bi di siyaare mboolem taalibe yi fi nekk góor ak jigéen mag ak ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Ahmadou Bamba ñi ngi lay delloo nuyoo yaa mbokk yu baax yi nga àndal te ñu ñoom ñëpp day conseiller di membre ngeen jóge ci soxna Aminata Touré di leen xamal ne kàddu yi rafet na lool bégg nañ ci lool foog naa ne bu yéen bu ngeen ñëwutoon mu yebal Cheikh Abdoul Ahad mii doy na sëkk ndax fii ma toog mën na fee toog ndax kër gi kër la mu yebatoon Cheikh Mouhamadou Moustapha mii sëñ Mor ma ba ko yebal doy na sëkk soxna bu samee noonu kon day mel ne dafa jëlaat suñu bopp dugalaat ko ci suñu biir kon loolu foog naa ne lu rafet la ñu rafet rafetlu itam kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko fi di la xamal ne tey dangay ñëw yem ci bis boo xam ne dañoo invité woon ñi nga xam ne ñi ngi jàppale président la république ci biir commune de Touba lu département bi commune bi la département bi dina ci ñëw waaye accès guñ ci ci biir commune Touba bi ndax suba màggal ga day xat te am nañ yéene saafonte ñoom ci jataay boo xam ne jataay bu yaatu la moo tax ñu def ko tey jii moo tax suñu mbokk yëpp tew fi mun naa su ma tuddee sëñ Abou mii rek ci fànn gi nga xam ne mooy fànn ak Serigne Touba gi day doy sëkk day yóbbaale ñëpp bu dee wàllu politique gi bu génnee ci biti liste bi danañu ko liir waaye suñu àll sëriñ mi ngi noonu ngeen dandal jigéen ñi soxna gay Gaye madame Mbacké soxna Ndioba ñoom ñëpp ñu ngi fi soxna Mati Mame Sey Mbacké moom sëtub Serigne bu kenn desut bu dee sëñ Mor Gaye ngi nii ñëpp ngi fi kenn desut bu ñu ngay léegi dañ lim eh, danañ ko lim léegi kon mel na ne fekk nga fi ñoo xamante ne bii sax foog naa ñu miin la ca ba mu daa ànd ak président depuis 2008 foog naa Fallou Ndiaye bi xam na ci dara di la dalal fii ci Touba ci bisub Serigne Touba bii di la xamal ne loolu yi nga wax bis bi lu ci waaye ñaan mu nangu te loolu du samay wax waxi mag ña la ndax bi nga xamee ne sëñ Modou Moussa mi ngi di ko def taxaw na fii ci bayti ne guddi gi day képp ku fanaan ci pàkk bu sell bii si yaram alam na sawar mu Moustapha ku ne xam na ko maami sëriñ bii toog di am sa du jaxate loolu soxna may moom a ko nettali mm. ci jamono jooja moom itam newoon na day sëriñ Touba li mu nekk ci kaw suuf lépp ci ay nattu la ko nekk ngir liggéeyal suñu borom ngir di ñu sàkku lu ñu am tey jii kon nag guddi gi nga xam ne moom lay sañ ci këri ajjanaam mooy bisu mbégte kon foog naa ne bis bi day bis bu rëy boo xamante ne bii bu ko waay aj rek attan na ko kon nag li nga ñaan ci doole bis boobu yi dañ lay ñaanal di ñaanal soxna si ñaanal président de la république lépp lu seen yéene ci réew mi sunu borom defal leen ko ndax man mi xam naa ne yéene ju rafet rek la ndax loolu moo ñu boole ak ak président muy am gis-gis muy vision ci foo xam ne fa lay li réew mi ëllëg muy gis-gis bu leer lépp nag di njariñul Sénégal mu ànd ko nag ak ay kàngam yoo xamante ne bii kenn ku ci nekk jaay nga sa lépp ngir jàppale ko ngir mu réussir mission boobu nga xamante ne bii moom la ko askan wi sas kàngam yooyu nag soxna Aminata Touré da cee bokk kon moom itam foog naa ne mu ànd ak président ànd boo xam ne ànd bu ànd bu rafet la di ànd bu gor di ànd bu yàgg kon bu leen yabalee fii ci dëkk bii di Touba ne bu ngeen demee bu leen mu tudd loolu day wane di tegtale doxin mi nga xamante ne bii mi ngi koy dox ci ginnaaw président bëggul dara topp ci ginnaawam ngir di ko jàppale ngir def ko accompagner ngir li nga xam ne moom la yéene ci réew suñu borom defal ko te yéene jooju ma wax ko léegi mu yéene joo xam ne yéene ju yéene ju rafet la kon ñu itam lañ leen leen yóbbante ci moom rek mu ngeen demee na xam ne kat ñu itam ci loolu lañu nekk mooy jàppale président de la république accompagner ko ba mu réussir deuxième mandat bi ndax premier mandat bi kenn ku ne gis na réalisation yi nga xam ne def na ko réalisation yooyu mu def moo ko may nit ñi doyloo ko wóolu ko ba tegaat ko ci bopp réew mi waaye bi mu ko daataan na jël kenn ku ne dégg na digg yi nga xam ne digg na ko ak réew mi li nga xam ne xas na ko ne bu ko sunu borom tegaat ci bopp réew mi dana ko def tey jii nag li mu soxla mooy ay jàmbaar yu takku yu nekk ci wetam jàppale ko bu digg yooyu mu digg Sénégal sunu borom may ko mu àggale ko ni nga xam ne noonu la ko yéenee te ñun ci yooyu disposition la ñu nekk kon boo demee loolu nga xamal ko te moom itam xam nañ ne ci loolu nekk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon daal dañuy ñaan yàlla rek mu dimbale ñu kattanal ñu may ñu ba yéene jooju lépp mu mën a àgg. te lépp nekk njariñ loo xam ne ci njariñu réew mi lay doon te li ci ëppati solo te mooy li nga wax léegi li nga xam ne nar ngeen koo def ci biir réew mi rawatina dëkk bii nga xam ne moo di Touba te loolu itam foog naa moom boo koy def ci président la ko gisee ndax kenn ko ne xam na ni nga xam ne ni la jàppe Touba ni nga xam ne ni la jàppe njaboot Serigne tubaa gi ni nga xam ne aussi ni la amee yéene ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba kon sant nañu baax a baax ci teewaay bi rawatina ba nga àndee ak suñu bokk yi loolu du mu noppi di ko di ko baamu ñoom itam ñu nekk fii nekk mu rafet di di di jàppale président ñoom itam ci biir dëkk bi wante aussi nekk nekk fees dëkk bi ca place boobu ñu nekk ndax taxawaay ba rafet ba nga xam ne moom lañ fay taxaw intervention à chaque fois bu ñu ko defee bu ñu ko génnee ci bi ñu nekk fi yëpp dañu am fierté ci ñoom ndax dañu xam ne kan ndaw yi ñu yebal foofee ndaw yu man ndaw ñu ngi nii te ñu ngi sagal dëkk bi te buñ fa nekk woon leneen it dañ ci am kersa te duñ ko mën di wax kon yéen itam sëñ laat sëñ sëñ moor ak yéen jëpp rek ñu ngi leen sant di leen gërëm ci sag boobu nga xam ne yéen a ngi koy sagal di ko siggal seen bokk yi ngeen bàyyi ko dem foofe ndax kenn ku nekk ci ñun fépp fu mu nekk bëtub Sëriñ Tuubaa lañ ko fi xoole kon su waxee wala mu jëf ci léppam Sëriñ Tuubaa gi da cee war a feeñ te Sëriñ Tuubaa nag ak yiw la Sëriñ tubaa ak baax la Sëriñ Tuubaa kéemaani kese la kon waxtu bu ngeen jëlee kaddu rek foog naa ne luy jariñ réew mi lay war a doon loo xamante ne leen kat ñii day teen ba ñu naanee ndox ma fay balle ndox mu neex la ndox mu sel la ndox mu feneen la kon ñu ngi leen sant yéen tam ñu ngi leen di gërëm sëñ Bamba ñu ngi lay sant di la gërëm di di di rek li nga wax léegi euh, Aliou di sa sama sama xarita duñu duñu tàggoo euh, sa wajur xam naa li mu seqoon ak gaynde Fatma seq ko ak sëñ Mbàkke Madina loolu lépp àll yi moo ma ko wax xarit bi di la di la xamal aussi sëñ am naa jeneen maam du ñu ko tudd muy sëriñ Bamba Syll doomu sëñ Taïba Daxaar moom itam nekkoon na foofu kon euh, boo dikkee fii tey jii sa sa kër nga ñëw kon yow itam ñu ngi lay ñu ngi lay dalal jàmm di rafetlu bu baax a baax a baax sa teewaay di rafetlu kóllëre gi di rafetlu aussi jàpp gi di la xamal daal loolu aussi lu lu ñu neex la lu ñu jàpp la lu ñu téye la di leen ñaanal yàlla rek tànk yi ngeen dikkee ngeen dox li ngeen bëgg a dox lépp ci dëkk ci mboolem njabootu Serigne Touba gi ak Cheikh Mouhamadou Moustapha gi te delluwaat ci jàmm bàyyi fi jàmm fekk fi ngeen jëm jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu